candidat wu PDS ci jongante falum jiitu réew bu atum 2024 juróom ñaari at a ngi ni tegul tànkam biir Sénégal. J'ai été contraint de quitter ma terre natale le Sénégal que j'aime au plus profond de mon cœur. ñu daanoon ko juróom benn ati kaso teg ci mu waroon a fay ay nampaay te ci fàttali ci atum 2019 Macky Sall doon wax ni ci yoon dafa war a fay nampaay bi. Il a bénéficié d'une grâce de ma bi ma ko defal moo ngi am njëriñ ci peine yi mu waroon a tëdd. bu dee amande yi nag da ko war a fay wala yonte ko loxo moom rek lay neex mu ñëw. il choisit de venir c'est son c'est son choix. diggante 2019 ak léegi nag lu bëri xew na fi. naam mbir mu ñeel wàllum caution bi ba tey ñoo ngi koy waxtaanee Assane jàpp ni dellu si waat Karim Wade amul lenn lu laale wàllu yoon. yorul benn pikini impôt impôt du Sénégal te du fay dara parce que yorul kenn dara. ça je di pour que mu leer nañ ci xelu doomu aadama yi. bu ñu sukkandikoo ci moom Karim Wade mën naa ñëwaat Sénégal saa yu mu ko neexee. question boobu dañ ko yàgg di agité di ko agité te ñi ko agité yëpp mën naa wax sax xam nañ ko mais dañu jaxase xelu doomu aadama yi rawatina militant. ak soppe yi nga xamante ni ñoo fare ci PDS fare ci Karim Meïssa Wade Amath Thiam moom xam-xamam màcc ci wàllum yoon jàpp ni képp ki nga xam ne ni daanoon nañ la nga war a fay ay nampaay nguurum Sénégal mën na la koo laaj bu fekkee ne dañoo yoral nguur gi xaalis mën nañu wax ñu fay ko jaarale ko ci procureur nga xam ne moo ñuy jox ab délai bu délai bi jeexee nag mën na def li ñuy wax réquisition d'incarcération maanaam mu jox ndigal police wala gendarmerie ñu téye nit ki fii ak muy fay xaalis bi. ci discours bu mu amal ci benn fan ci weeru janvier Karim Wade yëgal Sénégal yi yëpp ni dina delluwaat Sénégal ngir bokk ci joŋante falum jiitum réew bu atum 2024.